asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, <clears throat> mbokk yi seetaan eh, Thiès 24 fu ñu mën a nekk ci réew mi ak biti réew ñoo ngi leen di nuyu seen mbokk Ibrahima Faye ma fa yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy actuel actuel bi te ko ne xam ni soxna Jaaratullahi moo xewle. ak mooy ay waaw sëriñ Bay <coughs> màggal gii nga xamante ni incha allahu rabbi ñu ngi koy waaj alxamis nga xamante ni jullit yëpp yi ci réew mi ak yi ci biti réew ñu ngi koy waaj ñi mën a ñëw danañ ñëw incha allah Porokhane ñi mënta ñëw fa ñu nekk bokki jullit ya fa nekk danañ daje jàng ay kaamil def ay xasida def ko hadiya soxna jaaratullahi Mariama loolu nag li waral loolu mooy jigéen ju nekkoon ci ndigaleel boroomam toppoon kilifaam di boroom këram yaru njabootam waaw ba tax na fooy nekk ci àdduna yaa ngi bàyyi xel bis bii bis bi nag dañuy faral di wax ni dem fa di bërëngu waru fa yóbbu ñenn dem fa di xalangu waru fa yóbbu ñenn dem fa di fasaka ci waru fa yóbbu ñenn la fa war a yóbbu nit ñi mooy xeeñcu barab bi borom barab bi li ko fi indi woon xeeñcu borom barab bi jaamu yàlla gi mu nekkoon. xeeñ ci borom barab gi toppoon gi mu toppoon ndigalal boroomu këram sëriñ Bay ci loolu lañuy ñuy waxtaanee incha allahu rabbi ci soxna Jaaratullahi mi nga xamante ni mooy waajuru Cheikhul Xadim radiyallahu anhu eh, li ci gën a wiir te gën cee leer ndax toujours xam-xam dafay am ci silaay wax dañ naan kan moo ko wax waaw bi bi bi ma ko waxee it ci ban jamono la ko wax wax ja ndax méngoo na ak jëmm ja wala méngewul waaye mbooleem kilifa yi ci boppam li ñu wax ci soxna jaaratullahi mariama kenn gën caa dëër le kenn gën caa leer le xasida ak sëriñ Masamba Mariamu Jóob mi nga xamante ni xasida googu da ko def ci soxna jaaratullahi di mag di borom xam-xam di nitu suñu borom subhanahu wa taala waaye ba ko defee ba ko Seexul Xadim gisee kon ba mu ko defee yàgg na ba ko Seexul Xadim gisee dafa eh, da ko rafetlu lool xam ni lim ji wax lépp dëgg la waaye mu ko daan jàngloo moom Serigne Touba ak njabootam ci këram comme ni ñu daan jàngi xaside yi noonu lañ daan yëkkati xaside gii Serigne Baye moo war a baaxee jamono jaaree ko ci e, site bi nga xamante ni e, léegi réew mépp bàyyi nañ ko xel di Thiès 24 ngir taxawaayam e, Serigne Massamba Marie mu defa ni hamdan liman jaala al islaama wujudaana wal kufra wal jahla xufraanan wa fuqdaana aska salaati ilaa amna salaami ala muhammadin saada man lillahi qabdaana wal aali wa saxbi wal xaafiina millatahu maa nawarat millatul islaami buldaana wa baada fal xasdu bil manzuumi rad bil manzuumi matxu matxatuna li samxatin summiyat bi jaaritin aana asilatin watanan sarifatin nasaban كريمة حسبا تفضيلها بانا مطيعة ربها وشيخ سيدها أرضته أفعالها لله إدمانا sëriñ Mbaye sëriñ Moussa Momar mu defe nii Cheikhul Khadim xasida gi da ko daan jàngaloo ñiy jàng xasida ci kër Sëriñ Tuubaa gi ba pare di di ci yéemu te rafetlu ko am na ci baat boo xam ne sax Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko changé diggante daraa'ir mu changé ko def ko xaraa'ir mu maa ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala mu ñu yankawal lislaam te mu ak réer ak ku perte kéefar waaye nag di dellu di julli ci yonent bi alayhi salaatu nga xam ni mooy sangu képp ku ñu mën a julli waaye di dellu euh, di kañ saxaaba yi ak mbooleem kuy roy sunna di ñaan borom subhaanahu wa taala yàlla gën a leeral sunna ak fu mu fu a nekk. ak euh, maanaam fu mu mën a doon kem li mu li mu li mu leeral lislaam ginnaaw lii nag mi ngi mi ngi am yéene def xasida gi di wax di tagg ci ki nga xamante ni moom la ñu tudde jaara jaara du tur wa Mariyamu Buso mooy tur wa maam jaara li ko waral mooy dàkkantal la aljaariyatu mooy dëkkandoo sëriñ bay ci loola arabiya mooy dëkkandoo mooy dafa dëkkaalik boroomam ba ñu tudd ba ñu tudde ko dëkkandoo boroomam dëkkaale yàlla waaye waaye Mariama Bousso la tudd waaye dëkkal gi ma dëkk ak boroomam di jaamu yàlla di yaru njabootam nekk ci jub di topp boroom këram xoolul kenn royul kenn lu dul fa ummahatul muminine tegoon seen tànk mooy waajur jullit yi te soxna rasulullah yi mu teg fa mu leen di roy fa saxaabatul kiraam yi nga xamante ni ñoo nekkoon ak rasulullah ñoom rek mu leen roy kilifa yu baax yi jiitoon ci jamono mu leen di roy ba sunu borom subhaanahu wa taala defal ko li mu ko defal sëñ ma sàmbar daal ni soxna jaaratullah mii may wax nag asilatin watanan ci réew mii la dëkk ci neeg bay waaye nag sarifatun nasaban ku tedd ay bokk la ay bokk la mu wax nit nag euh, ku teddit waaso wa mu bokk la kon ngëneelam leer na ku toppan boroomam la moo tax jigéen jaamu yàlla farata la ci jigéen jaamu yàlla farata ci dafa kilifa bu baax gu ne eh, ñu baax ñaa ngi nii ci kaw bari lool waaye fu ñu jaar ba agsi la ñu amul maanaam jigéen ju baax ju ñu jaar ba agsi la ñu amul waaw waaye ñu baax ñu ngi ci kaw waaye mun ñu wàcc li tax fu ñu aw ba agsi ndaxte dañuy faral di wax ne bari alal taxut baax. ñàkkit téew ta baax ana rasulullahi demal ci xilaasu fi sirat xayril arab Seydul Xaaji Maalik nee na daan dafa daan bari tindu tàkk ci këram lan lay dunde soow ak tàndarma te moo ko gën xoolal sunu waa yi Cheikhul Xadim radiyallaahu anhu am na bis Serigne Baye mu ni tëll jug di waaj a génn tërëf moom Cheikh Cheikhul Xadim taalibe bi nekk ci buntu néegam buñ tuddee sëriñ bi di fere yi ñu ko fere yi daal bi ne tëll gis sëñ bi mel ni lu tërëf mu dem ca soxna ya ni leen dafa mel ni sëriñ bi dafa aajowoo lu mu jëfandiku ko dafa aajo xewal gu mu jëfandiku ko ndax néew doole gi soxna yi defar ñi defar laaxi soow yi daqaar ñi defar laaxi soow yi mbaanik def ko ci ay këll daal di koy riime ci buntub sëriñ bi bi sëriñ bi ne tëll dem di julli ji daal di laaj fere bi lu waral lii ñun ko mbàkk dañoo jàpp ne da nga aajowoo jëfandiku ko mun leen jël leen ko ngeen saraxe ko day bakkan bi xam ne doo moroomam jël leen ko ngeen saraxe ko day bakkan bi xam ne doo moroomam kon nga gis ni Cheikhul Khadim amul woon poos waxal na boppam ni dencuma xaalis dencuma or ñun ko loo denc mu ni kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamcu fiddatin wala jamcu dahab li ma denc mooy alquraanul karim li ma denc mooy sunnat rasulullahi alayhi salaatu wasalaam li ma denc mooy culture islamique waaye dencu ma xaalis dencu ma wurus li mu denc rek moo gën ci mooy gën ci ndaxañ ceef mu ni eh, moo tax jigéen war naa topp yàlla waaye war naa topp borom këram sëriñ Bay topp borom këram mi ngi aajo ci lu lu ko borom këram sant te ànd ak ndigalu sunu boroom na ko def lu mu ko tere te ànd ak tere sunu boroom na ko baax moo tax soxna jaaratullahi mii ku toppoon boroomam la waaye ku defoon kilifaam muy kilifa la nga gis ni moo tax ñun ko ardathu afaalaha lillahi ay dimana mboolem ay jëfam ñëpp gërëm nañ ko ay jëfam yàlla yàlla ko garanti garanti ko ko yàlla garanti nag moo tax mu jaare ci moom kii sawee jamono mu cheikhul xadim radiallahu anhu min woon kulliyati mojisatun taaxarat wa xayru xayratin la day ko doxirat sama lépp kéemtaan la waaye lu mujj ci man gën a yéeme Cheikhul Khadim moo waxoon ne ajaaba ni rabbu sama yàlla nangul na ma lu ma lu ma ñaan rek yàlla nangu na koo pare waajuram la ñuy la ñuy waxtaane Cheikhul Khadim ma ni woon sama lépp maanaam ñi nga xamante ni dañuy sax ci dimbali liggéey Serigne Serigne Baye moo tax liggéey Serigne Touba jàmm yàlla magu ko ëpp ko day na ñaan na boroomam ci liggéey gi ñuy liggéeyal doomi soxna jaaratullahi mariama mii daa daan ni waqti xawaïj allazina daamu fi xidmati wa hablahum maraamu sunu borom fajal sunu borom fajal suñu borom defaral suñu borom ubbil waaw ki nga xamante ni dafa sax ci dima liggéey lu mu bëgg fii na jàpp ne lu mu bëgg àllaxira na jàpp ne tàllaxi rek kenn bëgg fa lépp ngërëmal yàlla dugg àjjana ak gis boromam waaw moo tax mu daa waxaat ni hab lilladina saara'u fi xidmati fa lahumu diyaaru wasatal jannati yàlla mayel ñi nga xamante ni dañuy njëkkante ci sama liggéey seen kër yee nekk ci digg àjjana seen kër yee nekk ci digg àjjana sunu borom euh, sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu wax loolu te waxal na boppam ni ñaan gu ma ñaan sunu borom xamal na ma nangu gay ëpp mooy jiitu ñaan ga moo tax nag waajurum wii ko toppoon boroomam la moo tax jigéen ñëpp nañ ci profité topp seen i borom kër nañ ci profité ndaxte soxna jaaratullahi ay jikku la ci la méthode la aw yoon wu ñuy jaar la waaye du solo slogan du forme fond la sëriñ Bay soxna jaaratullahi du forme fond la ginnaaw nag du forme fond la képp ku nan maa ngi maa ngi roy soxna jaaratullahi wala maa ngi bokk ci day daayira soxna jaaratullahi na fexe ba la soxna jaara jikko woon mu jëm ca kem kàttanam te jukkuwul woon lépp dégg ndigalal boroom ak jëfe ko topp ndigalal boroom këram ak nekk ca yarug njabootam yiir ñëpp wax nañu soxna jaaratullahi mii musta ŋàññi kenn musta jëw musta eh, xas kenn kenn musu ko dégg mu xuloo kenn musu ko yeewu te nekk nag ay jigéen nag nekkoon nag ay jigéen te it la sëñ Bay Jaxate waxoon rek moo ko dal dafa ne woon sëñ Bay Jaxate ne woon jigéen balaa baax day nangoo dem dàggat tay rooti di togg jox sëriñam balaa tirim fóoti lewet ndagoo nangoo yor njabootu njabootu kër gi yaatu ci gan rafet rafet jikko am xel am alal amoon it def doomi soxna ci yiw fu mu sëy mu yokkooti sëriñ Bay Jaxate nee na jigéen ju baax noonu lay mel soxna jaaratullahi nag qualité yu yëpp meloon na ko daan nag jigéen balaa bon boo téyewul mu wàññi sa njël Ibrahima waxu ko sëriñ Bay Jaxate sunu maam ju baax joojo ko wax nee na jigéen balaa bon boo téewul mu wàññi sa del dem jaay soxee ànd ak jabe juuti dal tontu bañ wujj boo nee mu ni gel kii dool na joote jigéen ju mel nii ma wax doomam du am lu ñuy naw ndax daawul def lu ñuy naw ko sa ndey daawul def lu ñuy naw sa doom du am lu ñuy naw mukk daawul jëluy yi kon sëriñ bay nañ ci bàyyi xel moo tax soxna Jaaratullaahi mii mu a ngàññi kenn mës ta amul grand place amul jot waaye képp ku ñëw indil ko ay yitte sëñ Sam Mariama nee na dana ko faj te du ci boole coow mu ni ko képp ku xiif bu ñëwee mu jox ko mu lekk képp ku mar bu ñëwee mu jox mu jox ko mu naan in saaraha jaa'iun aw saaraha damiun saara bi ma indaha sabaana rayyaana képp ku xiif wala képp ku mar boo ñëwee ci moom sa mar wa dana faju sa xiif dana faju kon jigéeni Sénégal waaw jigéeni Sénégal ñuy mbootaayu jigéen ñi ku mel ni soxna Sophie Sophie Diop Fall waaw ànd ak ànd ak eh, ay kilifaam di soxna mi ñoom ñëpp nga xamante ne ay jigéen lañu ay jàmbaar lañu nekk ci réew mi kon yii ay roy roy la jigéen dafa war a xam jigéen dafa war a jub jigéen dafa war a fas la fu siram jigéen dafa war a taxawu am réewam jigéen dafa war a taxawu ak njabootam jigéen ju baax dafa war a taxawu boroom këram ndax dañ kilifa gu baax goo gis jigéen ju mag te baax ma nga fa ca gannaawam fas la fu séerim te di ko dimbali guddi ak bëccëg ku weddi laay rasulullahi alayhi soxnaam sa soxna Xadija eh, lépp lu rasulullahi aajo woon faj ne ko lépp lu mu jaaxle woon mu ne ko du dara jaaxle ji dana dañ fu mu nekk mu nekk ci wetam ba yàlla dogal woote bii subhaanahu wa taala eh, teg daal di ko sama woote bii na ko jotal ñëpp waaw wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin basiran wa nazira soxna Xadija jàppale ko ba rasulullahi lu mu ca bëggoon sunu borom def ko ci defal ko ci jigéen ju mel noonu day moo mën a am doom yu mel nii moo jur Faatimatu bintu rasul képp ku ñu naan sëtu rasulullahi ga koo koy sa kon tey soxna Jaratullahi nii la meloon kon jigéen ñëpp da ngeen mel nii kon lii mooy yóbbante lislaam ci jigéen ñi réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.